Vabbè, se te per do mai më fun fi. Si të për. Ba hanga ben e ngay ne ci kër gi di liggéey ngay daan sa doole te comme ni ko waxee xaalis bu lew ngay lekk yaakaar nga ko gaa yaa ngi liggéey ñu ngi lay fay chaque fin de mois xaalis bi la suñuy jëkkër di fay nga koy lekk duma ne lewul waaye au profond nekk na loo xam ne neexuñu benn yoon jàppal ne saa ñu yëkkatee xaalis bi di la ko jox ñuy metti suñu xol mais be man xam lan laa bëgg xam man lan laa leen def ba tax na mënoo leen maa supporté mu dem ba xaalis biñ may fay muy sama ñax sax day bon seen xol nggak nyuda, mau? fala papa ko dama la woo ne la ñu juboo nga ne ma juboo yaakaar naa ne bu nekkoon bëgg nga jam. mu la ci woowee dag ma ciy fekk si papa yaa imagine yow sa may la actrice bu mel ni yow dina def comme ni ñuy def dina la neex donte sax suñu wareef daawuñu ko matal waaye ñu doon am jàmm ci kër gi bu baax ñu ngi doon sentir ne suñu jëkkër am na ñun fuñ ko féete mais depuis nga dugg ci kër gi ba tey. kër yi comme luñ sotti kaani amatuñ jàmm ak suñu jëkkër yi ñun daal xam nga lan lay ñuy ndiroo jëkkër locataire bu fekkee ne tamit da nga ñëw luye ci kër gi ñu lay fay par weer ya tamit nga wax ñu ko rek parce que neexu ba neexu waaye li ñuy dund metti na ne fafa jigéen nga lobe soo gisee keroog ma ne la ma c'est parce que man xulóowuma ci ak kenn awma problème ak kenn ci yéen te soo gisee ma ñëw fii daan sama doole ak jàppale leen moo ma yëkkati mais comme noonu ngeen ko gisee baax na moom dinaa xam bu baax ni may def nga baal ma

ndax kii di Amina man lay bañ a gis lobe waxi noppi sonal nañ ma may ñu ma jàmm provocation xeetu provocation bu nekk ñu ma koy def buux nañ ma buuxa buux ba ci miir bi te même muus sax soo ko buuxee ba ci miir bu yàggee mu ëlbatiku song la te bëgguma egg ak ñoom foofu bëgguma def tay jii nii loo xam ne seni jabar après man ma si ruus te jiwoo ma ben yon lol wala maleni gis di seug sonal nañ ma euh décision bima ma jël nak dama ci réfléchir bu baax moy que dama bëgg arrêté daal lan dama bëgg arrêté pour sama jamm yaram euh, yaay dégg sa bop bu baax Kaya ginasambog mo ba? Fafa? Manam, déglu na la bu baax baax am nga lu droit aussi gis loolu naqari ci kër gi nga ñëw ñu waxtaanee ko maa ngi koy rafetlu bu baax baax waaye dama bëgg rek nga xam ni suñu digganteeg yow du jànk ak patron il ni paternel ni maternel en fait ni fraternel ni charnel aussi manam, ni kat bi di nan eh, positivement la koy waxe nak ñun ak yow séquñu bayante déedéet alors kaddu googu nonu nga bàddi ga sax ni li nga wax ci suñuy soxna deug ndaxte xam xamna len bu baaxa a baax manam fànn gu nek ñom la ci jëm wut pour rek sa génn kër gi waye ñom indi ñu la fi ñom ñun ñoo la fi indi Eh, Fafa bi nga ñëwee ba tey suñu lekkee lu neex yow a suñu solee lu am pili yow a kër gi su yànjee tey yow a nga kàddu googu noonu laa bëgg fa nga ko jëlee woon nga gasaat ba mu xóot nga dugalaat ko fa te xam buuse woo place te naa ni am naa ndogal boobu sa kaw. dafa leer daanaka Kéba na lépp. soxna yi indi wuñ la fi ñun ñoo la fi te ñun sa liggéey doy nañu biñ la fi indee c'était pour nga changer xar kanamu kër gi waaye danga ngaa changer xar kanamu kër gi ba changer comportement bu bon bi si suñuy soxna amoon kon nag wax ji ngay wax bala yeboo nga gas ko suul te xam ne damoo fenn te ma xamal leen gis nga contrat moo ñu lié et récemment lañ prolongé sa contrat yokk sa salaire contrat nag ñetti points yi ñoo koy ñoo koy dagg. entente entre employé ak employeur te amul suñu diggante ñun nanguwuñ ko force majeure amu fi et faute grave defoo benn faute ñett benn amu ci donc contrat bi day continuer bàyyi moom teg ko ci suuf. waw waaw loolu danay xatut moom magum yàlla am jëm mu toll ni Fafa taxaw ne day <laughs> ngeen ne du bàyyi fii de wóoratut. gis nga loolu sa yoon nekkul si li ñuy waxtaan. sama yon nekku ci de waaye ma ci bolé sama yon nekku ci fii ngeen ko waxee ci bir kër gi genn len waxee ko ci mbedd ma magum yàllaam jëmm majeur et vacciné mo bokkon ba neex safkani kaani moo ne bàyyi na nga la way libéré len ko wala dëkk bi de woratu ndekete bo bokkee bay day metti de men ki man ɗon haala Yang yanki jam ay nam naala yow bo batai dang ma wowul nak yowit iya, ah yow iya, wow mala dem dama fogon nesa sa dang kam mujje bay dede buub na ibu gas di fi dem batay yow kay gisuma yanki jam hey indila accès ya. togal ya. yanki jam togal ayo kii rafet na de. ndew sa sa sama wuutu la mooy sama rakk bi ci kër gi. yéen a ngi ci jàmm. ñoo ngi ci jàmm toogal toogal. ay fii baax na. eh toogal yow fii baax na. bilaay fii baax na. waaye nag ci jàmm. ñoo ngi ci jàmm indi laay kay. kii barikala sonuma sonuma. demay laajte rek ba yegg si fii xam nga ne borom lamiñ du leer. du leer loolu la. sa sa sa kon Amina rek laa ko wax mu joxoñ ma fi. yéen si jàmm sa sa mag bi laa jot dem ma nekko ko nee ko bu fajaree na teel ñëw. def maa soxore. Hmm. def maa soxore. Hmm. bi may nelaw ba jub. te daal hmm. mu wax moo ay gen. dama ko gën xam ne yow mi woo nga ko. waaye yow comme est nga ci jàmm rek jeex na. waaw ay waaye nag fii sedd na de. Ah. fii na de ah, gu bu guddee dee ma bay may fanaan fii. ngay fanaan fii waaye xoolal sa néeg nii. Ah? أنا كلم أنا لب أنا في بعنا أنا فو فو أنا سيد نيري أنا وي ما أنا قالنا والي أنا ديب دينكو أنا أفري أنا قالنا أنا لي أنا تخون أنا ولا أنا واحد أنا ننجي أنا واحنا أنا لينا أنا دفتي أنا dañ أنا nek أنا ñaan أنا ñoo أنا waaw أنا la أنا def ko fiñ la xollo xol ko fiñ la yamlo yam fa dex na tak amna ko ne ci kër gi yow defal ni nit nekku kan mo fi nek benn soi-disant jànk la xaw daal. yow sa yoon bu mu nekk ci moom. pig bu la eh. ko ah. may dara gis. bu ko may dara damay gumba teexlu. dégg ko. may dara. yow na nga fexe la tuut bu toggee yàqal mm. soo paree ñu jox la nga dem. xorom bi laa naan ci pay. Eh, bàyyi ko ma loxo buy bal hmm. xëpp ci suuf bu yàggee mu génn ci kër gi jeex may dara jeex na du waxoon naa sama bi cinquante mille laa lay fay waaw dinaa la ci tegal cinquante mille muy deux cent mille deux bu jotee booy dem dëkk ba ah. nga suuf ak naturel bi <laughs> leen ko sama loxo kontaan li ngeen bëgg rek laa leen di defal kontaan waaw bilaay walaay man damaa lekk cere ba ne nit kenn mënaluma dara. li ngeen bëgg. jugal faale kenn yow doo namu dara. loo bëgg rek. xaaral ma dug ci biir futeeku lépp commencé. loo bëgg rek waxal. waaw mën ngaa commencé. fii sa karaw sax daa daa kii du liggéey xanaa. defu dara defu mu ne moom moo ñu gën a féete kaw ci kër gi moom moo ñu gën a féete kaw lu ñu wax rek. wan ma néeg bi ma dem. ma futeeku ba dem. dama mën naa commencé léegi. mën naa commencé léegi yow la de. atiwa dama teg bagage dugg ci biir rek teg bagage waaw. dugg ci biir nga si meeku ñaw. ñemewu ma fii de doo ñëw taal lamp bi fu mu féete. ba xoolal mi ngi noonu. ah wax nga dëgg. atiwa. donc dama doon wër waaye. naka teel li ñu naan lamb daj naa. bii keetu nit. mais est-ce que xam nga ne kii fi jëlee Fafa de. nañ ko bàyyeeg moom rek. ah waaw baax na. ñun daal nañ ko bàyyeeg Fafa rek. ah illa xa illa la. <laughs> Fafa mooy jékki-jékki jël ay bagages ndew. ndew. ñooy waa ñooy dem te ñëw dégg nga. waa ci kanam. waa. koy loxati boo loxatiwul rek du baax li moom la ma am naa waxoon jàng bi du loxati waaye faaw muy loxati. Eh, eh, eh. lan la. yow lii lan la. ma ne ngay loxati. dee loxati. ruq-ruq yi dee ko loxati. taxawal en plus yow la kan. kon yow jaayuñu la sama CV avant may dugg ci kër gi. déedéet sa CV moom jotuñu ma koo jox. kon nag lii mooy wane ne yow doo dara ci gi. bale bi arrêté ko. soo buggee ma dangay pousse yi ma arrêté. xoolal xoolal mbalit bi loxoti woo fi. loxoti woo ko ah, loxoti wu ma. loo fi loxoti daa ngi gis mbalit bi ne fang nii nga ne ci daj nii nga ne loxoti nga. ana loo fi loxoti. dafa sim daal nag. yow la kan loxo. dama bëgg nga wax may bàyyi bàyyi aar ma. bu bale bi yow laalal sa bale ma laal sama bale. fii bu fi laatu lan. dama bëgg nga wax ma yow la kan. yow yaay jànq ñu góor ñi maa jànq ñu jigéen ñi mu jeex tak xam nga ne maa la long ci kaw ci noppi laa wax eh? Eh? yow gis nga dama asma nag déglu ma bilaay dama damay fot fii eh. fot laa di jeex na laa la wax waaye dindi dindil ma wax ma ne wax ci jeex na ah yow dañ laa yónnee ci man pour nga may fexeel waroon nañ laa laaj bi ngay ñëw ci kan ngay dugg man naa dese ah. dama lay ba damma waaye yaay kan ci ñoom yow yaay kan ci ñoom rek laa bëgg a xam laa ilaha illa oxeke anowe bale beeg yi fi nekkoon yëpp laa yóbbu li ban ker la ci keri Amina fu mu nek ci jawuji ma ko lon de waye dan na ma ci suuf ker gi dama fo goné amna mburo ak boor ak puuf na waye ay noqasi am moom jàng tay kee toj na waaye ñun yàgg wa ndew néeg bi amul woon caabi ah, ah, ah, bay naa bu yàgg te yëgu ko. bay da ngeen a ma dug bay. xanaa bala lan commencé goo di fii damaa foogoon ne macarona fi am nguro. na fi ay ndulee fi am. man kay bay na. waaw yoon bi ma jàpp. déedéet bay ma dem. yaakaar <laughs> kër gi kay. may waraat kër ma jaaxal. changé couleur